mu ne soo ko xusoon teg ko ci balance jël junniy bu teg ko ci beneen balance mu ne sama benn kawaru taalibe boobu daaneel ko junniy xutbu yi bu leen woy moo tax wa sha'ruhu sallallahu alayhi wa hmm? ah. moo tax ba ko borom Hamziya la de yaakaar naa ba mu koy woy bu mu tàmbalee du ca bopp ba chaaru kawar ga sax wéy na ko riixu tuflit ya sax wéy na ko ah wala déet ah, kañ ah te amuloon sax tuflit xamoo yaa yonent bi amuloon tuflit daawul tufli su bëggaan tuflit la ko yàlla di fabriquer tuflit waaw <laughs> ah, su bëggaan tuflit la ko yàlla di fabriquer tuflit ndax tuflitam day faj su ko bëggee rek yàlla fabrike ko mu utiliser ko ñàkkaat ko daawul tufli daawul ñaq yooyu yëpp yonent bi daawul ko def moo ko paasee Omar wa am ma tuur ndox sax yonent bi daf daan tuur ndox nii ci kanami nit ñi rek waaye du tuur ndox même dem gannaaw kër yàlla daf ko ko daf ko ko wax ndax li muy nit waaye dem gannaaw daawu ko def sax moo tax saxaaba yi Zeyd bu yonent bi mosaan gàjj gàjj ndax bañ sibiru di ko eh, yàpp ko bu toogee ba war a gàjju mooy dagg fii tuuti deret génn mu dëpp ci kaas mu manqu ko ba kii mu génnee ko jox zeydi ne ko demal tuur ko ah mooy li ñuy wax nàmpatal ci beneen eh, kii ci beneen langage zeydi bu tuur tourné rek ne ko sëcc naan bés yonent bi woo ko ne ko zeydi kaas yi ma lay jox noo koy def mu ne ko yow sa deret dinaa ko tuur yëpp laay naan keroog la ko yonent bi bàyyi Muawiya moo ko daan daggal weti weyam yi moo tax gaa yi dañ koon rek Muawiya bii ñuy wax nii di ko xas di wax lu ne dof rek wa imsaakun amma shajara baynahum yonent sama digganteeg sama saxaaba yi li xew seen diggante seen yoon newu ci noppi leen moo ko daan daggal weyam yi Muawiya min ci ñi daan bind wax yu la bokk alquran ji Muawiya ci ñi daan bind la bokk problème am yi doxoon nag waa kër yonent bi nag loolu suñu yoon newu ci waaye du tee ba pële la bu mosaan dagg wey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yonent bi joxee ne ko suulal ma ko mu dem denc ko léeg-léeg wéet maq ci maa la ko wax maq ci ba xolam sedd demaat denc barkeelu bu mu demee dama dama nag bay waaj a génn àddina woo doom ji mu ñëw mu ne ko demal indil ma mouchoir ba ma defoon ci barab sàngam doom ji dem indi ko mu fecc ko muy ay daggitu we doom ji ne ko papa lii lan la mu ne ko yëpp weewu rasulullahi dama ko daan denc ndax bés bii laa ko doon doyee mu ne ko suba laay dee waaye su ma dee bu ngeen ma sangee ba may sang comp leen ci ci we yi def ci sama nopp ndeyjoor compaat leen ci def ci sama nopp càmmoñ comp leen ci ubbi sama gémmiñ def ci comp leen def ci samay bakkan li ci des ngeen taf ko ci samay bët takk sama bopp muuraale ma ñu ne ko lii nag mu ne bu malaaka yi jubee daw ndax du ñeme lu bokk ci yonent bi duñ ko ñeme te li ma def rëy na lool donte saxaaba la <laughs> incha ci danañ ci gëj a ñëw waaye gis nga eh, julli du hasard yàlla na defal ma ko juróomi yoon ci bés bi dafa bëgg nga am contact direct ak moom boo xam ni dara du ko yàq ah, gis nga ba ci ruku siggi ruku sujud siggi sujud yooyu yàlla def loowu la ko pour wa ma jaala lakum min ad-diini min harajin yàlla ne defaluma leen ci diine pour ngeen am coono yëpp dafa am lu mu bëgg nga jëlee ko ci waxuma faj gi mu lay faj julli da lay faj ruuxiyan waaye daf daf lay faj yan mooy physiquement am na am na feebar yoo xam ne booy julli doo ko am déedéet parce que ni ngay sëggee ak diir bi li tax tekk bi dafa am lu mu lay fajal moo tax fii shifaaun wa rahma fii shifaaun wa sëgg bi daf lay dafa la am lum lay fajal gis nga boo sëggee piir sax beddal ab diit di nga yëg ne yaa quelque chose ci sa biir yaram boo siggee ne temm ab diir di nga yëg ne yaa quelque chose yaa quelque chose yooyu la yàlla bëgg nga yëg ko ah. ok ah, yooyu ay ramz la. moo tax alhamdulillahi faatiri samawati wal ard jaailil malaikati rusulan xoolal fi mu tàmbalee alhamdulillahi faatiri samawati moo tax subhaanallazi asri ca asamaan alhamdulillahi mboolem cent yëpp aji sax la ñeer buur bi ñuy wax yàlla faatiri ki xotti ànd ak saxal te taxawal assamaawaati asamaan yi juróom-ñaar jaayi lil malaaikati moo def malaaka yi rusulan ñuy ay ndaw ci fuñ bëgg a dem ñu dem fa te yàlla leen fay yebal mu ne wuli aji nixatin am na ci nag borom ñaari laaf pour mën a naaw naaw bu gaaw wax naa leen fi ci jamono yële ne leen pitax mi yàlla eh, malaaka bi yàlla dënk dënnu ni pitax la toll ni pitax la toll dënn yu rëy yi ngay dégg ci àddina bi yëpp moom la benn malaaka dong nga koy def moo yor liggéey boobu moom la ñuy wax raadu yusabbihu raadu bi hamdi rabbihi wal malaikatu min xiifatihi moom malaaka yi sax dañ koo ragal te malaaka la ni ñoom te moom sàbbaal la ci moom waaye njëriñ la ci ñun sàbbaal la ci moom ci digganteem ak boromam ndax loolooy liggéeyam waaye wal malaikatu min xiifatihi malaaka yi dañ koy ragal ñoom ndax yàllaa leen di won ne lu yàlla bind rek am na loo ragal yàlla lay won ne lu bind rek am na loo ragal jinne li muy garaaw garaaw garaaw gaynde rek la ragal jinne yi ñun ñuy ñun ñuy ragal ba ko ci jommi naan jinne ma jommal jinne li muy garaaw garaaw gaynde dong la ragal ndax gaynde yi dañ leen di yoot ba fàdd leen ni ñuy fàddee nit lekk ba seen xol sedd bu dutoon loolu gaynde yi duñ dund rab yi ci àll bu bu doon gaynde moom lañuy dundee jeex nañ bu yàgg mhm. dañuy mos ci diine yi <laughs> ah moo tax ñu bari doole mhm. dañuy mos ci diine yi bu baax a baax a baax ah? waaw waaw moom la kañ boobu laa laaj Malick di wax ah raxadu boobu la nu mu ko waxee waaw waaw yax na waaw raxadu boobu lay wax waaw xoolal fa mu ko daanee minal xalabi Maodo du nit moo tax kenn eh, yaxyaali mu doy waar yi. nee na am na néeg yoo xam ne Seydul Xaaji Malik te ma ko bañ a nettali sax nee bi mag ñi bi Maodo di defar mag ñi piir nee boobu day ut lu mel ni day ut lu ñetti xar wala ñeent wala juróomi xar ñu rendi leen ko ñu rendi ko mu ne dugal leen benn ci néeg bële ñu dugal benn mu ne benn muqaddam dugal ci biir bu ko gëddee ne ko dugal bu duggee doo wax li muy wax bu ne ko génnal bu génnee xar mi même génn ànd ak moom xar mi ñu rendi ba pare su waa ji su xar mi génnee même rek moom mu génn yegg ci yàlla bu yàgg ah ah loolu ñaa ci ñëw beneen yoon loolu alaaj Mansour la ko jàngaloon su daan dem di jox jinne yi kuur alaaji Mansour lay àndal ak Ahmad jaañ daayira waaw mu <laughs> daan jàngale nit ñi la daan jàngalee jinne yi Seydou El Hadj su daan jàngal jinne yi alaaj Mansour lay àndal ak Ahmad Diagne daayira qul uxiya ilayya annahu stamaa nafarun min al jinni yonent bi la ci doon ah yonent keroog bi muy dem di jàngal di tuubali jinne yi saaba yëpp a ngi fi woon ah Seydina Aboubacar la njëkk a woo Seydina Aboubacar ne ko ah te ngaa làmb keneen <laughs> waaw wala Seydina Omar ak fit wi di xam nga loo ciy déggee kenn ku nekk ak li ko yàlla jagleel. Seydina Omar ak fitam mu rëy yëpp yonent bi làmb ko mu ne ko te nga seet Ousmane damaa xaw a wéra <laughs> mu seet Seydina Ousmane Seydina Ousmane ne ko ah man mii di jamono yëpp xurfaan wee wa laal te nga seet Ali wala Seydina Ali ak doole ju bari ji ak fit wi <laughs> mu ñëw seet eh, Seydina Ali Seydina Ali ne ko ah nga làmb keneen ba xam rek boobu yonent bi xam na ne duñ dem ah. xam nga kan la jël moo tax yàlla lu mu def hasard du hasard moo tax mu ko daan wax demal ca kaab jàng alquran mu déglu la léeg-léeg mu ne ko demal jàng alquran mu jàng alquran nga déglu ko ba muy dem kaaba ko ne kaay ma gunge la waaw ah. ñu dem ba ci biir xur wi ci diggi xur wi yonent bi rëdd benn rëdd ne ko yemal fii rëdd wi bu ko jéggi loo mën a dégg ci coow bul jéggi rëdd wi xoolal te rëdd rek la rëdd ca ngay dégg la sëñ Babacar si waxoon ne bu ma romboon ay xale ñuy fo rëdd aw rëdd ne ku ko jéggi dee man Babacar ma teggee ku jaar fële ndax xaw ma lu ca yàlla dogal benn rëdd la yonent bi rëdd ne ko bul bul jéggi rëdd wi ak loo mën a dégg nag bul jéggi rëdd wi yonent bi jox ko loxo dugg ci biir xur wi mu di dox di dox ba gisatu ko kaab ne ma jékki-jékki rek dégg yuuxu yoo xam ne dama foogoon ne àddina bay tukki ne na ma ne man maa ànd ak rasulullaay dem su del si waatu dañ naan maa ko sànq te maa dem rek ji seet ci lu nekk waaye nee na bu demee bay jéggi rek bëgg a jéggi rëdd wi rek am lu ko jeñaat mu delluwaat booba yonentu baa nga foofa waaye moo koy jeñ nee na ma dégg coow coow coow coow coow biriw yoo xam ne dama naan àddina bi tukki na ma fox mu ne def naa ko ñetti yoon waaye dafa am lu may jeñ rek ma delluwaat mu ne yonent bi génn si nag ñaq tooy xep ni ko kaab mu ne kaa mu ne ko tuubal naa cent vingt quatre mille jinne ci diir bi li ma fa nekk mu ne ko maa la doon jeeñ nag géñ naa ci yàlla ne boo jéggi woon rëdd wi yow mal xiyaam laa lay gisaatee waaye du ci àddina danañ la lekk par morceau mu ko boo jéggi rëdd wi naa ci yàlla ne yow mal xiyaam laa lay gisaatee waaye du fii mu ne ko looloo taxoon ma ne la bul bul paase rëdd wi moo tax yonent bi kenn du moom moo tax booy julli nag yooyu yëpp da koy teewal da koy teewal xam ne julli ay symbole la moo tax yàlla ne alhamdulillahi alladi faatari samawati wal ard jaailil malaikati rusulan uli ajniha mu ne am na ci ñoo xam ne ñaare laaf lañ am mooy jullik suba soo dóoree ñaare ràkka yooyu am nga ñaari laafi malaayika yooyu fuñ naaw yegg nga naaw yegg fa sa roox yegg fa uli ajnihatin am na ci ñoo xam ne ñaare laaf lañ am waaw lu ca topp mas na ajiniha bu la neexee nga ne benn laaf am na ci ñu am benn laaf waaye dañ ne benn laaf du naaw waaye yàlla moom nu ko neex mu bindee mas naa mu ne am na ci ñu am ñaari laaf mooy jullit suba wa sulaasa am na ci ñu am ñetti laaf mooy jullit timis Hmm? lu ca topp wa mu ne am na ci ñoom ñeenti laaf mooy jullik tisbaar ak tàkkusaan ak geey ñeenti ràkkal mu ne wa yazidu fil xalqi ma yasha jibril ñëw am na ñu ma dolli ci ay laaf lu ma neex mooy naafila yow boo naafila yàlla dolli na lay laaf wa yazidu fi lxalqi maa yacha waaw ah, jeex na waaw ah, soo naafilaa rek yàlla dolli la booy naafila rek yàlla dolli lay laaf ngay gën di am puissance waaw hmm? eh, eh, Moustapha moo tax Moustapha mii nga dégg ñu naan ko Moustapha Serigne Cheikh mu ko jëlee ci turandoom Seydi Jamil di magam moom la tuddee sëñ Moustapha si responsable moral moo ko daan wax Moustapha nee na alaaj Moustapha eh fekk ñu dem waalo biñ demee waalo wata waalo waalo yëpp Seydi Jamil rek lañ gëm ñi cëpp bokk <laughs> bañ fen ñi cëpp Seydi Jamil rek lañ gëm alaaji Mansour a tax alaaji Mansour a daan ànd ak moom waalo nee na bi njëkkee dem waalo boobu fekk na dexu waalo gi ay jësit la ba fees mag ñi kenn ñemewu la jege dex gi te at mu jot mu jël léeg ñetti xale wala lu ko mag ñi diis ko ko nee na bi ñëwee ba ci bunti dex gi ne eh, ana mu saf ana mu saf nee mu ne ko plongel ci biir sumul sa mbubb te plongé ci biir nee te boobu mag ñaa ngi gis jeexit yaa ngi ñaa ngi ñëpp mu ne eh ana mu saf billaay bu doon taalibe tey yii <laughs> Seydi Jamil la ma ko nettali ci gémmiñam mu ne Moussa ana Moussa nee na ma ne ko maa ngi mu ne ma ci biir ñaana na ma ne fu teet sama mbubb rek plongé ci biir mu ne léeg-léeg ma nuur ba ak benn jësit mu naan ñebaat nee na kañ ñemewu maa génn maa ngi ci biir di fay rek léegi di rombanteeg jësit yi nee na ba ab diir alaaj Mansour ne ma doy na génnal nee na ma génn ci solaat sama mbubb mais eh, mu ne eh, doomu araab yi tey la jësee gi am ci dex gi dem nañ ndax ñemewuñu Alaaji Maalik nag <laughs> ah ah keroog la fa jësit gi jë am waaw à suivre à moo tax ah, Alaaji Maalik bokk ci yàllaa ko dimbale yàllaa ko dimbale laa cheikh al islam alaaj ibrahima Niass daan wax ne xaw ma ku góorgóorlu ko yàlla dimbale laa xam waaye looloo dal Maodo Maodo yàllaa ko dimbale moo tax suñ borom nag doy waar ñu jël lii rek comme dama ko yëkkati woon moo tax xul joo dégg ci alquran du waxal erreur la moo tax xadafi erreur bu rëy la def kitaabu axdaram boobu erreur bu rëy la def waaye nag yàlla moom ku tuub mu baal la suñ yoon newul ci loolu la waaye erreur nag daañ ko souligner waaw bi mu ci yebee bato pour may ko Mauritanie boobu ul dada moo fi nekk bi bato bi yegsee ul dada gis nusxa bi dafa ne yëpp nañ ko tuur ci géej gi benn téere wàccul Mauritanie moom ful la jooju la ci def yëpp dañ ko sottiwaat ci biir géej gi moo tax xul tekkiwul waxal foofu laa ciy duggaatee rek bu ma nee oustaz Sidi Mbay jógal wax soo jógee lool loo xalaat ngay wax walla loo xam ne jub na ci sa xel loolu ngay wax waaye su ma la nee Oustaz Sidi Ahmed jógal nga jóg taxaw ma ne la neel looy wax da naan shérif nee na mooy neel moo tax yonent bi ne yàlla nee na waaw kañ kenn la qul neel mu ne yàlla nee na foofu yaa ngi firee qul yàlla nee na ahadun kenn la qul yàlla nee na huwa moom yàlla moomu allahuma yàlla ahadun kenn la lam yalit jurul kenn yoon ci yàlla isa dàqu ak Uzayru ñoom ñu doon ibnullahi ñu dàqu lam yalit jurul kenn moom yàlla walam yuulat te kenn juru ko Mariama dàqu inna allaha salisu salaasa <laughs> ah, wa ma min ilahin illa ilahun wahid walam yakun nekkul moom yàlla te du nekk te du nekk te faw lahu di ko ñeel ku fu an association wala ab associé ci nguuram gi yàlla ne associé wu kenn walam yahu yakun lahu kufu an waaye am na lu ko jiitu allahu samadu allahu buur yàlla samadu nee na moom moom la ñëpp daw jëm si ci ñoom moom ci moom soxlaal ko te soxlaalul kenn dara qul huwallahu ahad allahu moo tax nag lam yelit jurul kenn walam yurat te kenn juru ko walam yakun lahu di ko ñeel te du nekk mukk di ko ñeel lahu moom yàlla ku an association wala associé ak kenn amul kum associé walam yakun lahu kuf an ahad associé wu la kenn pour mën a taxawal dara lépp moo ko moomal boppam moo tax mu ne nag xul neel yow yonent bi xël ndax mun dafa tukkee suraka ikum ci sa bokk ci seen bokkaale yi ñi ñuy bokkaaleeg man man kenn ca bokkaale ya koo xam ne yabda u dafa mën a sos alxalxam mbindeef bu dee mbindeef rek lépp dugg na de lépp lépp lépp topp ba mu ko sosee ba noppi yuiduhu mu delloowaat ko ca cosaanam mooy mu rey ko ndax mën na ko kenn ci seen bokkaale am na ko xelay tontu nga ne déedéet mu ne buñ tontuwul dara xul ne leen xul neel allahu buur yàlla nag moom yabda u sos alxalxa binde mbindeef yëpp moo leen sos summa topp yuiiduhu mooy reyaat ñépp moo sos mooy delloo ci moom hmm? fa anna xanaa boog tu fakuuna du ngeen fàttaliku du ngeen yéemu fa anna tu fakuun xanaa du ngeen fàttaliku ne man yàlla maa man lool mu dellu waxaat ne xul neel hël ndax boog min shurakaikum am na ci seen bokkaale yi man koo xam ne yahdi dana mën a jubal ilal xaq jëmee ci dëgg ñu ne déedéet mu ne xul bu boobaa neel allahu buur yàlla yahdi mooy jubal de jubal gu ànd ak gindi foofu jubal bu ànd ak gindi lay firi gindi mooy xippi say bët ngay xool di xam di xàmmee di ràññee jub gu ànd ak ràññee yahdi mooy jubal gu ànd ak ràññee lil xaqi ñeel dëgg dëgg mooy yàlla allahu huwa alxaq walxaq huwa allah hmm? naasiri alxaqi bilxaqi afa man ndax ki nga xam ne yahdi mooy jubal di gindi ilal xaqi jëmee ci dëgg te muy moom a xaq kookaa gën a yeey an yu tabaa bañ topp ko aman ñeel ka nga xam ne la yahdi munta jubal illa an yuhda lu dut dañ koy jubal <laughs> alquran moo day war ah illa an yuhda fama lakum xanaa du leen ñeel kayfa taxkumuna ni ngeen di attee du ngeen xa xel ci ni ngeen di atte ne jubut fama lakum kayfa taxkumun ah du leen yéem ni ngeen di àttee ngeen xam ne jubut mu ne wamaa yattabi'u du topp nag aksaruhum lu ëpp ci ñoom illaa zannan lu dut ay njortu rek te inna zanna naka njortu la yuxni du jëriñ min al xaq ci dëgg shay'an dara ndax inna allaha naka buur yàlla alimun moo xam bi zaati alimun mooy aji xam ji bi maa yafaaluuna ci li ngeen di jëfee lu waaye di jëfee rek yàlla ne xam naa ko benn ndar képp ko kon yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla defal ñu sutura yëpp xalaatuma ko woon waaye alxuraan moo moo demee noonu kon bu àjjuma rek xam naa eh, ñu jéem di boqati ci ruq ba di tafsir bo xanaa loolooy looloo koy sottal du noonu Omar waaw yal na ko yàlla def yal nañu yàlla ah waaw ah ndax lii kat du ma ci jël eh, eh, boole léeg lii day xaw a saf xorom li ma dinaa xool rek aatumaan ngeen di ko jàppale nag ci monte bi suratu loqumaan incha allahu xëy na moom it loqumaan léegi mu jeex ci kàttanu yàlla yal yàlla defal dégg ak topp yal yàlla defal sutura yal nañu yàlla defal mba mba mba xam ngeen luy mba mba mooy baal mbaal koo xam ne dara dootu ci topp yal nañu ko yàlla defal mba yàlla bu la bu la ne yal nañu yàlla defal mba mba moo gën a yaatu baal hmm, mba mba moo gën a yaatu baal nit mën na laa baal am lum la baalut waaye mba déggoo ñu ne mbaa yàlla ak muumin mbaa yàlla ak muumin waaw ah, kañ mbaa yàlla mooy ko yàlla baal toppatula la dara dara dara dara loo def neex na ko yal ko yàlla boole defal waaw ah, am na nag te góorgóorlu yi koy maye de waaw ah, am na te ku ko yàlla sedd faw nga sedd ko ñeneen ñooñu nag mën nañ ko bañ a xam gis nga yii day am ilaa yawmil qiyaamati ah wax naa leen fii ne Cerno Yaxya Ali waxoon na ma ko am ku ma fa àndal mu ne ma yéen ñaar ñii am na ko ci yàlla dam ma xalima bàkkaaram maag benn nitu yàlla ku baax ma ñu ànd mu ne ma yéen ñaar ñii am na ku ci yàlla dam ma xalima bàkkaaram mu ne waaye duma leen wax kan la ci yéen ñaar ànd leen te yàlla tax ki ko am dina ko wàll ki ko amut mu ne ma lii ma leen wax nag maam maaska maamu imaam Thiam Ndoka mi fi ñëwoon moo jëndi set bi ma fay dem fekk naa fa néegi ñax ba waaye nekkatu fa léegi néegi ñax boobu mu ne fa laa ko fekk mu ne tànk yi mu ngi dugg ba ci doojoor yi ci pax ñaari tànk yëpp fi mu tege nee na ma muñ ko muñ ne ko mënuma koo muñ ne ko waaw ka sa ñaari tànk yi ci biir pax mi pax mi yaa ko gas wala déet mu ne ah déet yax yaa yàlla wax ne wajaalu buyutakum xiblatan wa aqimu salaata hmm? yàlla ko wax ci alquran di wajaalu buyutakum qibla wa aqimu salaata yàlla ne seen néeg yi bu ngeen koy tabax sax na ngeen ko féetale penku